Ah, gaay yi Omaro wat na bopp bi Omaro na ndigal li barke Serigne Bamba Omaro jëfee na ndigal li Omaro wat na bopp bi na ndigal li barke Seexul Xadim kon nag Sénégal maa ngi leen di ñaan ngeen xam ni Omaro mii taalibe Serigne Touba pire la te lu bëgg lu mu bëgg rek Serigne li Serigne Touba bëgg la bëgg barki Cheikhul Khadim mi ngi nii ndigal jëfe moo toog ci kanamu Serigne bi ne tuub na tey jéggalu Serigne bi ne ko sa bopp bi neexuma dem na wati ko barki sëriñ Bamba waaw. ko loo xam ne. jàpp ne du njariñ mu wax ko lay njariñ mu def ko. billaay wallaay Bamba wax bi mi ngi la jàpp sax yow. waaw waaw. waaw a sax